yéen ñii di seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi. fanweer ci ay daamar yuy def fukki place ak ñaar. di li nga xamante ne bii nag moom la kuréel gii di AFTU doon jébbal seeni caabi ñii di transporteur yu Touba tey jii ci talaata ji. dañoo ñëw Touba pour euh, def cérémonie de lancement ci euh, oto yi ngeen gis ni mooy ay minibus yu euh, ay gër marque ay gër ñu tuddee ko yoonu jàmm mu nekkoon programme boo xam ne AFTU moo ci initier ak président regroupement yi nga xam ne ñoo nekk ci quatorze régions yi ak quarante cinq départements yi ci Sénégal yëpp. Euh, projet bi nag boo gisee li tax ñu indi ko nag mooy jéem a fexe indi li nga xam ne moo jëm ci renouvellement bi nga xam ne moom mooy parc national bu transport interurbain moo tax tey AFTU ànd ci ak commune bu Touba oto yi nag dañ koo jox li nga xam ne moom mooy regroupement yi nga xam ne ñoo nekk Touba ak transporteurs yi nga xam ne ñoo nekk Touba. bu ñu sukkandikoo ci moom ba tey daamar yi di yu mucc ayib te làmboo itam karange gu mat sëkk. oto ay marque ay gër la. Euh, marque ay gër nag dafa nekk marque boo xam ne daanaka. pièces am yëpp ay pièces Toyota la ak communauté yi mu àndal yëpp oto yi sont sont des véhicules de douze places onze ak chauffeur bi ak communauté yi mu àndal yëpp am na sécurité am na confort climatisation comme yeneen euh, communauté yi nga xam ne or véhicule de transport am na ko. tolluwaayu dëkk bi ak itam taxawaayam bu ràññeeku ci wàllu transport di lay wu tax ñu jébbal dëkk bu sell bi di Touba lim bu ñu toll ci ay daamar. tey soo gisee ñu ñëw fii ci euh, commune bu Touba Touba dafa nekk dëkk boo xam ne dafa spécifique ci ci ci wàllu économie nationale. nekk deuxième capitale ndax Touba dafa nekk dëkk boo xam ne boo xoolee ci réew mi à part Dakar Touba moo gën a peuplé. tey jii moo tax bi ñu xoolee réseau bi tamit ak ñu xam ne transport Touba gis nañ ne li mën a apporter ci li nga xam ne moom mooy liggéeyu transport au niveau national tey jii ñu ànd ak ak acteurs yi. transporteurs yëpp ñu ñëw tey jii jox leen oto yi ci ndigalu euh, président Mbaye Amar. ñoom transporteurs yi di xamle ne projet bi mënees na ci xaar ay jeexital yu am solo ci liggéey bi. lim nu mën a indil bari na ndax ku yor oto bu màggat ba mu yàgg nga yor oto bu bees moom déjà gis nga ko chauffeur bi koy dawal sax bu waree oto bu bees dana xam ne dawal ko bokkut ak dawal oto oto bu màggat. client bi nga xam ne moom la doon wut di naxanteeg moom di ko bëgg a te bëgg ko wala mënu ko mënu ci mënu koo yeb dana ko ko yombalal ba bu bu ko gisatee bëgg dugg ci otoom kon loolu am na lu mu ko lu mu ko jural. parce que bëgg a xëy dem Dakar dox say soxla dem dugg ci oto boo xam ne bi mën ngaa def ci yoon wi ñeenti ñeenti waxtu wala juróomi waxtu buñ la ko defee defati la ko dootoo bëgg a dem gaaras loolu moo waral ñu jóg ci indi oto yi paas yi nag ñu ngi koy xayma ci lu toll ci junni diggante dakaar ak Touba bu loolu weesoo ab système bu ñuy saytoo yile daamar ak itam fexe ba tënk vites yi ci benn place ba desu ko mën a yokku lii lépp di ay matuwaay yooyu daamar yu bees yi làmboon nañ ko buñu sukkandikoo ci ndaw li fi teewal aftu yéen ñii diñu ñu seetaan jaaree ko ci youtube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al TV te bu leen fàtte laal cloche bi